hôtel teeru bi doon na dalal tey niki ajuma ji fukki fan ak ñett ci weeru novembre 2020 ñaareelu édition bu meeting audiovisuel FACT Dakar bu kuréelu jigéen Afrique yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum communication ak télévision boobi li ñu tàmbalee niki démb ñu ngi ko teg ci kaw thème bile femme média ak sécurité ci wàllum ère numérique meeting boobee gis na tey ji participation jigéen ñu bëri ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum audiovisuel. FACT nag mooy femme africaine en communication TIC et télévision. Euh, ñun dañu nekk euh, ay taskatu xibaar yoo xam ni ñu bëri ci ñun ay soxna lañu ay jigéen lañu ñu bëgg rek euh, ci tas ni ñuy tasee xibaar ñu jox jigéen gëddaam jox ko bu baax parce que ci suñu liggéey gis nañ ne jigéen ni mu mel ci société bi ni mu nekkee yaay nekk yaay nekk jabar nekk soxna nekk au centre de nos familles nga xam ne lépp luy dox ci biir kër yi jigéen moo koy doxal ba pare génnee ko ci biir dëkk bi joxuñu ko gëddam bu baax a baax ci biir télé yi ak ci biir réseaux sociaux yi walla presse en ligne yi lu tax parce que luy gàllankoor jigéen la ñu gën a gis moom la ñuy wone jigéen bu am ay tolof tolof ñu photo la léegi léegi wone ko jigéen bu am problème euh, à l'antenne tout de suite ñu wone ko ba pare nit ñi di commenter ci ci gannaaw alors que jigéen yi liggéey nañu lu ëpp loolu solo lu gën a baax loolu ñun nag suñu commencé wul par ñun kenn duñu ko defar ñun soxna yi suñu jàppantewul ñu euh, euh, dëgëral suñu liggéey xam ne suñu liggéey liggéey bu am solo la boo xam ne ñun ñoo war a jàppale yeneen jigéen surtout jigéen yi nekk par exemple ci politique ñu bëri dañ leen di ŋàññ lu nekk ñu yegg ko seen der ñun buñ leen jàppalewul kenn du leen jàppale ñu war a taxaw seen wet jàppale leen ba nga xam ne dinañ dem fu sori sori sori ci seen politique parce que ñoom ñëpp li ñu bëgg rek mooy defar askan bi defar réew léegi nag suñu mitin bi dafa jóg pour dajale ñi ñu bëri du rek ay producteur wala ay journaliste rek ñoo fi de ay comédien ñu ngi fi ay art actrice gis ngeen leen gis nañu ay politique gis nañu ay waa ministère de la femme ñëpp ci jàpp war ci liggéey ak même ñoo xam ne ñi ñoom liggéey xaalis la ñuy liggéey parce que liggéey bi aussi dafa laaj ñu ka lu tax ay animatrice ak ay parce que léegi lu bëri ci télé yi ñoom la ñuy gis ñoom ñoo nekk ci kanam am na nu ñuy doxalee rek dafay influencer ñu bëri ci société mu foog ni xëy na lii moo baax alors que loolu baaxul actrice tamit bu ngeen leen gisee gis ngeen série yi léegi nu mu bëree ci suñu euh, télévision yi ak ñi askan bi ni mu ko bëggee ni mu ko nammee mm. actrices yi war nañ leen conscientiser ñu xamal leen ne bu ñu commencé di jouer dañoo war a taxaw taxawaayu jigéen d'abord am na yu bëri yoo xam ne suñ ko defulee maana amaana gone yi duñ ko gis ba ba di ko toppandoo waaye am na yoo xam ne ay valeurs yoo xam ne buñ ko véhiculer rek dina baax ci euh, jigéen yi dina baax ci gone yi dina baax ci askan bi alors bi mooy suñu nañ ko en 2018 euh, toujours ci autonomisation des femmes à travers les programmes bi yoon ñu def femmes média et sécurité euh, wone ci zone de guerre yi ak zone de conflit yi ak insécurité yi ak même violence yi nga xam ne mu ngi am ci kër yi ñu naan violence conjugale ak yooyu naka la presse bi war a traiter information yu mel noonu du image bu gën a ñaaw rek nga wone ko parce que kii violenté nañ ko non non da nga koy ormal da nga koy sutural parce que jigéen la mën nga wax wax ji fekk nga rafetal wax ji loolu yëpp il faut nag xam nga bu ñuy former journaliste du ñu former journaliste jigéen wala journaliste góor journaliste rek la ñuy former mais journaliste li muy bëgg rek mooy wone le plus vrai possible mais bu fekkee ne yow jàpp nga ne yow jigéen nga wala ki ngay wone jigéen la te am na askan ci gannaawam di nga ko wone ni mu gën a rafetee quand bien même di nga joxe la bonne euh, information loolu mooy premier panel bi deuxième panel bi ñu ñëw ci euh, équité jigéen yi ak góor yi ndax yem nañu ci liggéey bi ndax ñoo yem salaire ndax ñoo yem gëdd lu tax patron jigéen yi bëri ci presse bi ak yooyu ak euh, aussi jigéen bu nekkoon à la place des patrons ndax dina dinañu traité information bi mu gën a baax ci jigéen yi parce que euh, xoolaay bi muy xool information bi dina tax xëy na nit ñi gën a ormal wax ji ak ak defin bi troisième panel bi mooy tey ci suba dañoo waxtaanee pandémie bi Covid 19 bi nga xam ne dafa ñëw gàllankoor suñu liggéey télévision. comme micro yi distanciation bi nga xam ne mboot euh, kii euh, xew-xew folklore yi ñu doon def ci studio yi mënatuñ ko def yooyu yëpp euh, waxtaanee nañ ko xool ndax dafa di loo xam ne lii day des wala bu feebaru jeexee dañuy jëlaat suñu liggéey comme niñ ko doon defee avant avantage yi ak inconvénients yi ngoon si nag incha allah. dinañu waxtaanee loo xam ne lii mooy journalisme citoyen mooy naka léegi ak suñu téléphone portable parce que xam nga téléphone portable dafa ñëw libéré kàddu jigéen. boobu jigéen balaa mu doon dégg kàddam ñu invité ko ci télé wala ñu invité ko ci rajo waaye léegi mën na jël téléphone am wax lu ko neex sàndi ko ci réseaux sociaux yi waaye bu koy def aussi ndax xam ne li muy sànni kàddu jigéen la te dafa war a nekk kàddu bu am maana bu am solo boo xam ne day yëkkati jigéen waaye du ko suufeel dañoo yàgg ci journalisme ñu xam ne léegi dañoo war a jàppale gone yi nga xam ne ñëw nañu quand bien même méthode yi changé nañu parce que léegi journalisme bi li mu li ci gën a bëri mooy presse en ligne bi li ci gën a bëri mooy chaine en ligne yi li ci gën a bëri mooy téléphone yi ñu war a xam ne fépp fu ñu taxaw nañ taxaw taxawaayu jigéen d'abord lépp lay wax sa morom féetaleel sa bopp foofu nga xool bu fekkee yow suñ la ko defee dina la neex bu fekkee suñ la wonee nii dina la neex bu dee sa yaay wala sa sa mbokk sa tànt sa bàjjan la ñu wonee ndax dina la neex su boobaa di nga am taxawaay boo xam ne bi di nga ci am retenu di nga am naam euh, succès ci li ngay def waaye doo tooñ kenn doo yàqal kenn doo ŋàññi kenn ñun jigéen yi dañu bëgg ñu am taxawaay boobu même jigéenu yi suñu wax ci ñoom ne lii day defar xam nga loo xam ne lii dafay jëmale askan bi kanam mu nekk njëriñu ñëpp waaye bu ñu nekk di ŋàññi rek loo xam ne lii suba dina tax du ñu am benn jigéen bu ñu représenté wu tépp ñun politique yi dañoo compté ci ñoom parce que ñoom ñooy dem assemblée te assemblée foofu la ñuy defee budget yi foofu la décision yi bu ñu fexewul jigéen yi egg assemblée nekk ay jigéen yoo xam ne dañuy jël ay décision jamais décision yi du nekk en faveur des jigéen parce que fi ñuy décider foofu la jigéen yi war a taxaw. bile événement médiatique tey doon na dajale ak ak yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ci maanaam directive wu CNRA ak initiative wu benn magazine bu ñu naan debbo sénégal point com loolee ngir euh, ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy création contenu yi nga xam ne am na valeur ngir euh, dimbali jigéen ñi yëngu ci wàllum audiovisuel